fii fan la fii fan la fii fan la kii kan la kii kan la cinquième ma di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax ci accueil bi am mbégte ñëw fii ci parcelle li ci topp la mënul tudd parcelle non assainie parce que bu dee parcelle assainie la li fi xew ci ay jafe-jafe du fi am parcelle yi ñun bu ñu ñëwee au pouvoir incha allah à partir du 25 du 24 mars dinañu assainir les parcelles parcelles parcelles yu ñu assainir warul am inondation warul ñàkk assainissement warul ñàkk lépp li nga xam ne ci transport la ñu buy bu mucc ayib te nit ñi soxla ko mais ku wax parcelle rek di nga wax waxu assainissement dama ciy taxaw muy parcelle muy Grand Médine muy Patte d'Oie lépp lay boole parce que ñëw naa fi parce que ñëw naa Grand Médine ñëw naa Grand Médine waa Grand Médine xam nañ fi ma toll ci ñoom ak fi ñu toll ci man ñu wax leen leen restructuration incha allah Grand Médine ñu ànd ko ak waa Grand Médine ñu defar ko ñu assainir suñu cadre de vie inondation ku xam aux Nations Unies bi ma fay soog a dugg j'étais le conseil régional de la CEDEAO et des Nations Unies sur la problématique des catastrophes naturelles notamment des inondations loolu du fii ci Sénégal la commencé liggéey bi def naa ko ci Niger def naa ko ci Ghana def naa ko ci Gambie def naa ko ci Mali def naa ko ci feneen ci rek ci rek ci rek ci rek lijjanti inondation ci réew yooyu bu waa Sénégal waa Parcelles lay wax bu ñu tegee sama loxo réew mi ci sama loxo je prends de régler les problèmes d'assainissement et d'inondation de, de parcelles assainies parce que parce que parce que li may wax gaa ñi loolu la man dama dama ko def ba pare ñi ma njëkk a xam liggéey yi ma njëkk a occupé j'étais un expert sur la réduction des risques de catastrophes naturelles loolu loolu loolu woowal leen ma gaa ngeen xool ku ci am expertise boobu donc donc inondation yi ci parcelle inondation yi ci banlieue bi assainissement évacuation des eaux pluviales je suis un géographe on connaît le concept de bassin versant il faut que ñu respecter loolu ci sunu aménagement du territoire ci sunu aménagement urbain loolu mooy loo xam ni bu ñu ñëwee du ñu ko tàndu dañu ko xam dañu ko jàng sama mémoire u DEA fii ci université Cheikh Anta Diop xam nga lan laa ci bind ci affaire u inondation de la ville de Saint-Louis donc écoulement écoulement laa ko tudde woon écoulement et inondation dans l'estuaire du fleuve Sénégal le cas de la ville de Saint-Louis donc je connais très bien les problématiques d'inondation fii ci sa fii ci euh, ci ci parcelle problème mu assainissement bi fi am bu ñu ñëwee dinañu trouver des solutions mais au-delà de loolu ci sunu programme nit ak naataange xam ngeen ne ci pilier un bi sur le développement du capital humain am na lu am solo loo xam ne dañ ko ci bind mooy amélioration de notre cadre de vie parce que dund pour mu nekk dund gu gën il faut que sunu cadre de vie nekk cadre de vie boo xam ne moo gën te bu ñuy wax cadre de vie madame le maire wax na ko léegi infrastructure ci la bokk ay tali ci la bokk assainissement ci la bokk ay jardin yu nit ñi féexloo ci la bokk ay terrain yu xale yi footballé ci la bokk ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen